Serigne Babacar la premier bi boolu moo bëgg Serigne Saliou bëgg naa ko bëgg euh, ci li professeur wax laay njëkk laay njëkk ñëw parce que feebar bi réalité bi mu doon Europe. doon ko ci pays tropicaux yi parce que newoon nañu virus bi supporté wu plus de vingt six degré te fii euh, dëkku tàngoor la kooku muy benn ñaareel bi premier symptôme feebar bi symptôme sibiru la. donc sibiru mooy moo lay njëkk a dal te sibiru suñu feebar la miis nañ ko xam nañ ko mais tubaab ñëpp xam nañu sibiru dafay rey donc euh, loolu dafa doon loo xam ne euh, ba noppi ñu tere ñu jël garabu sibiru pour faj corona bi muy de euh, débat bi amoon ci ci nivaquine man nivaquine laay wax pour nit ñi xam ko hydroxychloroquine donc ñun feebar bi macha allah mënuñ ko dékku mm-hmm. ci suñu constitution ak ci ni ñu yàlla bindee mm-hmm. lañ ci jublu woon euh, moom lañ ci jublu ba léegi sax mooy mooy wàññi ñun africains yi parce que ñëpp déggoon nañu Antonio Guterres ni dina am plus de 10 millions de morts en Afrique ca gannaaw ga jabaru Bill Gates ni moom muy gis sax muy génn sax ay milliers de cadavres jonchés dans les rues de l'Afrique mm. kon loolu moo doon yéene bi parce que ñoom

day gën gudd fan kon dañu gën a bëri ci ci ci ci monde bi donc am na ñu war a wàññi ñoom lañu jàpp ni ñun amuñu fi solo kon depuis jamono yi année quatre-vingt la nekkoon ci politique boobu am na ceeb bu ñu fi indi woon bu tudd PL quatre cent quatre-vingt-un kooku day wàññi fécondité maanaam day wàññi sa jurukaay hmm. euh, moom lañ jox euh, Gabon yi ba Gabon amuñu bëriwuñu indi loolu ñu ko fii benn ceeb bu di jël euh, bu jóge woon États-Unis lekk nañ ko dara bi Tchernobyl amee produits irradiés yi pour ndax néew yu irradiés yi nga xam ni euh, euh, radioactivité moo ci nekk tooke bu bon a bon a bon a bon yooyu yëpp lañu ko indil ak eld dend yeeg yooyu yëpp dara après ñu indi ay programme planning familial ay yenn institut yoo xam ne bëgguma leen tudd mais ñëpp xam nañ leen di naan euh, nañu wàññi suñu jur wala ñu espace suñu jur kon ñun mmh. suñu nombre daf leen yàgg préoccupé mmh. Euh, am not cadre buñ invité sax ci a suñu comme si ñun dañu ëpp wala calculer donc lolu fegn na tamit vaccin mhm. pour le cancer du col de l'utérus mais borom xam-xam yeb euh, vaccin bobu dafa amone ñaari conservant c C61 day mhm. production ovarienne da koy da koy wàññi ñaareel bi c'est 61 bi boo demee ba ba ëmb sax da koy da koy tuur da koy yàq donc loolu yëpp euh, pour wàññi suñu jur la te vaccin boobu may fàttali y a y deux ans je crois jox nañ ko xale yi de neuf à douze ans fii Sénégal programme la boo xam ni ñun ñaq nañ ñu ko ba pare mais loolu yëpp ñu def ay Ebola ay Sida ba ci sibiru bi nga xam ne miis nañ ko ay feebar yu ñu fi dugal la te ñoom gisuñu lu mu ñu def ñun donc euh, euh, euh, bien nu mu tudd ci sax Covid bi. même chose la ñëpp gis ni virus bi dañ ko breveté Strascoff donc dañ ko fabriqué en laboratoire loolu l'air na daf leen échappé ñun lañ ci jublu woon fàggaagal mais c'est kaw le mujj dal parce que ñoom ñoo am ay centaines de milliers de morts. Mm. jaaxle ci ñun li ñu nee cocc di dox suñu soxla. di lijjanti donc mu am benn concept bu ñu boo xam ne Bill Gates moo ko moo ko lancé muy bioterrorisme maanaam tiital ñu ci wàllu feebar pour nangulooñu lañ ñuy bëgg a teg maanaam confisquer suñu suñu liberté mm-hmm. confisquer suñu koom-koom mm-hmm. ba noppi jox ñu ay vaccin yoo xam ne mm-hmm. dañ ciy dugal ferñeent boo xam ne euh, tuuti na tuutiwaay bu toll ni karaw ni mu sewee nga xaaj ko junni mooy nanu nanomètre moo toll noonu nga xam ne bu ñu bët mën a gis moo gën a tuuti microbe loo xam ne dañ koy dëxañ ci biir vaccin bi loolu nga xam ne day mën a connecté wu à des objets bu fekkee ni 5G bi ñëw na te 5G bi mu ngi ñëw parce que dafa am benn projet ID 2020 identification 2020 boo xam ne Bill et Melinda Gates ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko créé bëgg képp ku ñu vacciné ñu mën ko tracer biologiquement donc dañuy duggal ay marqueurs biologiques parce que limay wax luy ñëw la lu naqaree dégg la mhm. motax ma souhaité won un professionnel de la santé tok fi moom mën ko poser yenn questions yi mu gëna leer mais lolu biomarquage bobu mhm. lolu mu ngi ci biir vaccin yi loolu dañ koy def mhm. te ñu ngi koy imposer ba ni ku vacciné wul ci Covid du sax mëna a tukki te vaccin dafa am protocole dafa am diir boo xam ne ci lañ koy liggéey ak diir boo xam ne ci lañ koy essayé bu gàttee ba gàtt dina jël juróomi at bu gàttee ba gàtt dina jël juróomi at te ci borom xam-xam yi nga xam ni ñoom ñoo xam wàllu médecine ak infectiologie ak virologie maanaam mbirum virus ñoom nee nañu virus bu mel ni corona dafa am couronne couronne boobu daf koy tax muy soppeeku muy muté kon virus buy muté nee nañu mënut a am vaccin luy soppeeku pas a am vaccin parce que vaccin bi kon ban ban gène moo ci nekk ban ban ban ban souche moo ci nekk kon problème la kon vaccin yi dañ ci jublu leneen euh, affaire coronavirus parce que c'est du fi réalité man j'aurais compris que États-Unis y a une vaste campagne de vaccination Italie Espagne parce que faut faire des ravages. def ravage mhm. mais ñun suñu autorités euh, insuffisance rénale baa ngi fi yeneen feebar fi nit tous les jours pathologie euh, cardiaque yeeg cancer yeeg tous les jours ñu mais kenn du la wax ñaata nit cancer rey par jour ñaata nit la insuffisance rénale rey te en temps yi dañu manqué woon sax matériel ñu a jooytu ak yeneen ak yeneen boo demee hôpitaux yi dafa nekk kenn xamul lan la mais mësuñu gis feebar boo xam ne chaque jour ministre day ñëw

premier euh, ministre de l'intérieur jël na arrêté mais la rassemblement public manifestations manifestation yooyu loolu daf arrangé parce que vous ñu dara yëngu fi parce que dañu nekk ci ay jalgati euh, covid bi mu mais le président mu l'eau loxo ci suñu 1 milliards loi d'habilitation loolu beneen facilitation bu doon covid du ko mës am ci la jox euh, gorom bi milliards yi ñu koy laaj facture bi mënuñu ko indi belles léegi rassemblement d'autres am donc si on nekk ni accalmie totale lay am opinion ñu mën a yëkkati mooy li ngay li ngay wax ni dañ ko doxeñ ci aspect économique bi yëkkati économie numérique euh, wàccee économie réelle maanaam suñu koom-koom yi la ñu bëgg a màbbal parce que boo juróom benn weer président Macky Sall ni kenn du dem de région à région kenn du dem du dikk restaurant yi tëj euh, transporteurs yi liggéeyatuñu kenn amatul revenu kenn amatul dara loolu mais ñëpp dañuy ndool économie bi dafay dafay dafay affaissé wu. léegi ban économie mooy jóg mooy économie numérique parce que télétravail la ñuy wax liggéeyee ci sa ordinateur télé enseignement jënd euh, jàng ci sa ordinateur télé achat jënd ci sa ordinateur. léegi xaalis dafa électronique ay code lañ lay jox wala mu nekk sa téléphone wala mu nekk ci forme forme numérique dootul looy daj nii. mën nga dem ci benn restaurant fayeeg sa téléphone. def orange money wala beneen beneen beneen beneen transfert. mu jeex ñu ngi indi beneen monnaie boo xam ne bitcoin boo xam ne bokk ak mone yi ñu am yooyu nag moom Bill Gates ñoo nekk ci gannaaw ak mhm. industrie pharmaceutique yi mhm. Bill Gates moom dafa nekk ci informatique parce que mhm. moom euh, xam ne nañ ko ci ci ci système d'exploitation yu bëri yoo xam ne moom moo ko teg te moom la ordinateur yëpp di doxee presque voilà euh, industrie pharmaceutique bi tamit avons un avantage li euh, chloroquine bi oh. pour jaay ay euh, lu cher oh. vaccin bi Italie manifesté contre vaccin parce que oh. vaccin bëgguñu ko ku ni corona mais mais amna amna pandémie pandémie mais Afrique mën wax épidémie mais pandémie dafa am ay pour ñu a tuddee feebar pandémie moo tax ma bëggoon euh, un professionnel de la santé nekk fi dafa dul sax pandémie épidémie la mën a nekk à tout le moins Serigne la bi bi bëgg Serigne bëgg ko bëgg ay